nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo yéen a kaay gii di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa général Mamadou Mansour Seck la mu xamle nee na ñàkku kaaraange gi nga xam ne moo am ci réewum Sénégal kilifa yi war na nañu say jóg askan bi kenn ku nekk dugal ci sa loxo am réew mënul développé te amul kaaraange gu mat sëkk yéen a kaay gii di réew mi quotidien ak laas moom général Mamadou Mansour Seck mu wax ne Sénégal maanaam noonam bu njëkk mooy ñàkk yar ndax bëri na ci askan bi ñoo xam ne amuñu ay teggin lu jëm nag ci ñàkku kaaraange wut ab numéro veer boo xamante ni askan wi képp koo xam ne njort nañ ne kii daal ay mbiram leerul ñu daal di woote man koo daal di signaler yéen a kaay gii di Vox Populi mu ñu xamal ñu ñàkk kaaraange gi jamono ji dafa lëmbaa jël réew mi ci buntu palais présidentiel rek am na benn tubaab boo xam ne ci digg bëccëgu ndara kam ci lañ ko daal di agressé jël ab saagam yóbbu yéen a kaay gii di libération daal di xëy nag ci wàllum njàng njàngale mi ak négociation yi nga xam ne doon nañu ko amal ak waa G7 waaye nag négociation yooyee dafa mujj nag tàbbi géej ndax ak ak déggoo mujj sa am ñoom sax nee ñu nag seenu xeex dañu koy wéyali yéen a kaay gii de laas mu ñu xamal naa ñu nag ñi nga xam ne nag ñooy ay élèves di teg fitna yenn si ay jàngalekat loole nag daat nay métti lool jàngalekat yi ba tey ji nag journée morte maanaam duñu daal di jàngale ji ba pare nag wéy di ko naqarlu di sàkku élèves yi nga xam ne ñoo dóor seeni jàngalekat ñu daal leen di dàq yéen a kaay gii di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa aji mbergaan kanute moom nag daat nay wax ci lu jëm ci mbirum ger gi nga xam ne jamono ji ma ngi jaaba jonge ci réew mi te la wax ko barki démboo Ndiaye la mu xamle nee na njiitu réew mi di président Macky Sall moom nag amul kenn koo xam ne dina la daal di làq-làqal maanaam ñiy def ay tojaange ak i giraawaali ak foo man di bokk daal dina sa jël ay matukaayam moom aji mbergaan kanute ba tey ci yéen kaay gii di réew mi ko dëjee daat nay wax ci Macky 2012 ak nag taxawaay bi nga xamante ni ñoom moom lañ sa daal di bëgg a taxawee maanaam daal di kay jubbanti waata ba tey ci biir journal bii di Vox Populi ak laas mu xëy yóbbu ñu diiwaanu Gambie mu ñu xamal naa ñu démb nag askan ba dañoo mer ba Italie génnoon si mbedd mi doon amal ay manifestation ñoom nag la ko waral mooy dañoo wax ne Adama Barrow moom nag bi mu jotee ci réew mi dafa waxoon ne ñetti a rek lay def ñoom nag dañu koy fàttali ne ñetti at ya mat na du ñu ko bàyyi benn yoon muy daal di continuer yéen a kaay gii di libération mu ñu xamal lan ñu am na ñuy wax ne am na ñett nit ñoo xamante ni ñàkk nañ si seen bakkan am ñaari rajo yoo xam ne dañu ko saa daal di tëj journal bi ne wax ji kay mooy Adama Barrow ci boppam moo wax maa waxoon waxeeta waaye démb Gàmbi tàng na jër bëri na nag ay nit ñoo xam ne am ay gaañu gaañu Guy yi Sagna ay avocat am ci yéenekaay gi di réew mi Rewmi Quotidien ñoom nag ñuy xam xamle ne daal déposé waat nañ ab bàyyab ko musa Sow bu Kogera ñu fekk ko ci biir journal bi la mu xamle nee na collectif ñoo lànk ñoo bañ di xeex lu jëm ci wàllum yokk courant gi ñoo ñee ay xale yu taxawaalu di lambar lambari rekk kese lañ ñoo xam ne jëmuñu fenn waaye nag moom jiitul Kogera la mu xamle defar nañu ay flyers yoo xam ne dañu saa def li nga xam ne mooy bilan président Macky Sall te nag ñoom daal duñu nangu kenn nag di occuper terrain bi ñoom daal dañuy wax ne jàpp gi nga xamante ni jàpp nañ ko Guy Marius Sagna maanaam lu ci xel nangu la Seydou Gueye moom tim ci journal bi di xamal Guy Marius Sagna na ko pale dem fa nag ku ko def buñ la jàppee yaa ka teg sa bopp yéen a kaay di réew mi quotidien mu ñu xamal la ñu njiitu réew mi di président Macky Sall jamono ji nag mbirum koom daanaka yitteel loola ba sax démb ci ngoon la daal di jóge ci Ndakaaru dem nag ci Allemagne ngir fekkee tey ji ab forum boo xam ne jëm na ci wàllum économie moom njiitu réew mi ànd nag ak ñenn ci gouvernement bi journal bi Quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall nag daan nay ànd ak xaritam bii nga xam ne mooy président Mbagnick Diop ci avion présidentiel waaye rek ak ki nga xam ne mooy Baïdy Agne bu CNP ak Mansour Kama président bu MEDES fas yéene nag daje fa ak ay personnalités yu bëree bëri ba tey ci biir yéen kaay gii di réew mi Quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu waa CEDEAO ñoom nag daat nañuy wax ne ñetteelu mandat daal du fi daal di am ñoom nag kàddu yooyu dafa mel ni Alpha Condé Sall ak Alassane Dramane Ouattara moo tax a jóg biir yéen a kaay geneen goo xam ne daan nay xëy wax ne waa CEDEAO daan na ñuy weddi lu ni mela laas yéen a kaay mu dikkal ñu si liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekkoon ci SDE ñoom nag jamono ji yi ngi sonn ba maara day taali ndax seen i da dañu ko daal di bloqué ba pare seen i prime ak seen i indemnité kenn fayu leen ko journalub groupe promo consulting bi xëy di samp ab laaj di wax ne Moustapha Diakhaté ginnaaw bi ñu ko dàqee ana kan moo siy topp Seydou Gueye moom nag la mu xamle nee na Moustapha Diakhaté daal moom moo bëggoon ñu dàq ko ci parti bi te dafa mel parti bii di APR en tout cas li am ba de journal bi nee na bëri na ñoo xam ne dañoo frustré ci biir parti bii di APR Moussa Sow bu Kogère la mu xam lee nee na Moustapha jaxate ci boppam bu ñu waxantee dëgg la tax nag muy ŋàññi Macky Sall ak doxalinam la nga xam ne moom lañ ko joxoon moom la ñu nangu te nag mbir mi warul doxee noonu yéen kaay gii di sunu làmb xëy di ñu xamal na ñu ñi nga xam ne jàppoon nañ ne combat Modou Lo Ama Baldé du am nañu dalal seen xel ndax bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar 4 février ñeenti fan ci weeru février la ñuy amal seen face to face bu